أيصطد بي كرب وها أنت فارج نحرر نحو الباب بابك أقرأ باي فاطمة بنت لن يكار وبسمع مجلل وبدل سيمي باوان غياد في لول دي خليفة نفسي تكرنا عثمان أقدومي ترمجي جبي moo bu ñuy juree faw soo ma baawaan la sama nga dundal lépp yowmal qiyaam mbokk yi asalaamaaleykum sëriñ bi tabaarakallahu ñu ngi laa ziar bu baax suñu yaay jooju mbokk yi sëriñ bi nee na kàddu yi daal ñu ngi siy jiital sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin di jël ay kàddu yu nuyoo ak ay kàddu yu teraanga kàddu yu yar kàddu yu teggin waaye kàddu yi cofeel di ko tasaare fa tabarakallahu si mbooloo mu tedd mi di jël nuyoo yooyu di sa jiital ki nga xam ni moo waral bés bi ubbi bés bi waaye fa tabarakallahu taxawaayam moo waral ñépp maase ñëw si jotaay muy xaaji sëriñ Maodo Gaye mii bu nu jëlee nuyoo yi teg si loxam yaram ak tegginam mbaaxam ak yaatoom xam doxalin xam yoon ak njàngaleem dana ko jaarale fa tabarakallahu fa mu war a jaar dana ko jox magam ju tedd ji nga xam ne magam la ci biir waaye magam la si biti di ko jàppale si biir di ko jàppale si biti dana jël nuyoo yooyu jox ko mboolem njabootu sunu baay Ahmadou Gueye ñëpp ñu taxamtiku téye nuyoo yooyu ba képp ku fi nekkul bu gisee ak moom ëllëg mu jox ko nuyoom fa tabarakallahu waaye di jëlaat nuyoo yi di ko teg nag fa tabarakallahu si sunu loxo sëriñ bu tedd bii moom mi nga xam ni bàyyi na sa xadara bu tedd ba ñëw fii taaral jotaay bi jëmmal jotaay bi waaye defar jotaay bi mu ne njabootu maam Seydi El Hadji Malick waaye ku tuuti amu si ñépp fa tabarakallahu yàlla moo leen màggal ndaxte maam Seydi El Hadji Malick nitu yàlla la bu kenn werantewul arif billahi la kenn la fa tabarakallahu si adduna bi li mu nu jàngal si yonent cuub ñu ko defar ñu ko jàngal ñu ko ba ñu ko ba ñu koy tari kenn mënut a fay maam Seydal Hadji Malick waa kon bu nu gisee njabootu maam Seydil Hadji Malick dañu koy jox cër ba nu ba mu yelloo rawatina nag mu jógee eh, si sëñ Babacar si Abdou Abdou mu yebal ko mu wuutu ko fii ñu ngi lay xoole bët boobu wàccuwaay boobu di la ko jox di la yóbbante it si xalifa bi ay nuyoo yu sell si biir loolu laay nuyoo nag mboolem a imma yi fi nekk di si jiital imam di si jiital fa tabarakallahu sunu wayjur di imam ka taxawaay bu rafet la amee ak mboolem imam yi fi nekk yëpp ak dëkk yi fi nekk yëpp waaye di wëlbatiku nag si administration bi di nuyu monsieur le ministre ah collectivité ak porte-parole du gouvernement tabarakallahu moom mi nga xam ne moom moo amee euh, euh, kaddu yi président di ko jox wàccuwaayam ngeen farlu bi ko war bi ko war loo si wàccuwaayam ñu ngi ko koy jox di ko dalal jàmm it fa tabarakallahu si jotaay bi waaye di jëlaat nuyoo yi di ko jox préfet di ko jox wàccuwaayam di ko dalal jàmm it di nuyuwaale fa tabarakallahu sous préfet di ko sant di ko gërëm waaye di nuyu bu baax a baax Gànn ak mboolem délégation bi nga xam ne moom la moom la ministre àndal waaye ñu ngi fàttaliku major fay major fay di ko sant kooku bu baax bés yu mel nii bés yu mel nii ku am taxawaay la si bés yu ni mel ma ñaan nag képp koo xam ne man nga si moom dara nga jàppaleel ñu ko boo fa allahu mu gën bee des ak ñun di nuyu nag jigéen ñépp waaye di nuyu xalifa général barakallahu nu yaa awa gay ko tuddee di nuyu nag jigéenu gox bi yépp fàttew ma ñoom Adja Ndeyli Adja Ureylum fa tabarakallahu Adja Njéemeeg ñépp rek ñu ngi leen di nuyu mu ne chef de village Abdou Aziz Gueye ñu ngi koy nuyu di ko sargal di ko jox wàccuwaayam mu ne fa tabarakallahu Serigne Maodo dëgg-dëgg yeen njabootu Ahmadou Gaye wàcc ngeen man ngeen ñu ajjuma bi may ngeen ñu ajjuma bi ñu man fee def wasifa def xadaratu juma ñun ñu jëm tijaniya gëm ko dund ko xam ne waa am na fu ñuy toll may ngeen ñu sens waaye yonent bi teewandoog ñun si jotaay bi wir dandoog ñun si jotaay bi sikk sàkk amu si ba lépp lu fi waay am rek lu lu fi waay ñaan nangu na si seen barke kon fa tabaarakallahu imaam Kamisa. jërëjëf sëriñ bi nee na jërëjëf. sa taxawaay sa taxawaay. si watu sëriñ Maodo. sa taxawaay si mbëtt. rafet na lool rafet na lool. say kaddu rafet na taaru na. ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mu ne xas daaw góor suñu baay jërëjëf yow jamono buñ la gisee rek waaye tiwaawan la ñuy xalaat alaaji màkka ja jërëjëf taxawaay bi rafet lii laa amoon si ay kaddu ñu ngi nuyu nag fa tabarakallahu Sidi Ahmed mii di doog a yegg si fa tabarakallahu di sëtu Serigne Babacar Si gan gan gan la mu ne gan la si gox gi si gox bi ñu nekk léegi lay doog a yegg si bi may daanal nag ay kaddu mu ne si la honorable député Ndiagne Diop di doog a yegg si kon nag lay dalal jàmm di la wax bismillah di la dalal jàmm di la dalal jàmm ak sa délégation ak sa délégation bi nga àndal di la joxit sa wàccuwaay di la jox fa tabarakallahu li yelloon si nuyoo yi fa tabarakallahu nuyu nuyu nañ ñëpp sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp ah. fàttewul fàttewul na it mu ne fàttewul ñu gouverneur gouverneur am na taxawaay bu rafet am na taxawaay bu rafet si bés bi si bés bi kamisa daf ko fàtte imaam kamisa daf ko fàtte ma koy ma koy dabu ma koy dabuwaat lépp lu ñu waaye lépp lu ñu waroon si si bés bi si bés bi taaru na rafet taaru na rafet na sunu administration ak sunu administration bi ñoom it dañ leen di sant di leen gërëm si seen temps si seen xarañ si seen taxawaay ba lu mel nii taxaw maa ngi gis tabarakallahu adjoint préfet sous préfet di ko taxaw moom it di ko taxaw ku am taxawaay fa tabarakallahu waaw euh, Maodo it mu ne as Maodo ñaan ñaan bés bu mel nii. bés bu mel nii. dañ koy amal bés bu fixe. dañu koy amal bés boo xam ni daal fixe lay doon. bu tiwaawoon gàmmoo. bu tiwaawoon gàmmoo. ajjuma ba sa tegu. ajjuma ba sa nopp. ba sa teguwaat ba sa teguwaat rek. mooy mooy gàmmu fa tabarakallahu bésu Baye Ahmadou Gueye kon bu ko defee ñun ñëpp ñu yëgandoo message boobu note ko. kon sant nañ ñëpp kon sant nañ ñëpp. gërëm na ñëpp waa nga jag ak tund jandeer gi yépp daal Serigne Maodo nee na sant na leen gërëm na leen haza asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu bokk mu ubbil monsieur ci kanam bu ma jëlee kàddu dinaa wax kan mooy ngeen jox kan mooy monsieur le ministre boole bu yàgg la ci biir ji sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor de Sangalkam di nuyu le xaalis de Bambilor di nuyu suñu sëriñ suñu xarit muy maam Ousmane si maam Ousmane ñu lay ziar bu baax di la sant ci teewaay bi ñun nag suñuy kàddu du doon lu dul kàddu yi cant ak dalal gan yi mais cant gi ñu ji kër ci njabootu suñu bàyyi gañ seen mag toog ni ak seeni rakk waaye ñu beral ci kenn muy Maodo yi xam ne noo dëkk Maodo ñu ngi lay sant gërëm bu baax ndax mu jéewu puso mu réer say mag jël lépp jox la nga yor lépp kon bés bii bu amee li ñu jëkk def mooy santaat la bu baax wax say mag ñu ñaanal la nga yàgg taxawee bés bi bés bi nag bi may ñëw maa ngi fekk xalifu Bambilor yor tànk tey gorom heure la jullee juma fa la yaram mu sutante sax moo tax bokkuñu ko tey mais Thierno maa ngi lay sant bu baax maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm si sa taxawaay ci tund wi dara nag ñoru la lu dul tund bi am na yàlla yokk sa taxawaay. di gërëm population yi fi teew ak fu fi waay jóge yàlla def fi ngeen ñëw muy commune Bambilor yàlla def ma nekk maire te yaakaar naa bés bi dinaa ñaaraat nekkaat maire ñëwaat fi déwén incha allah ndax ndax sama sëriñ a ngi nii sama yoon ndax nag fii la ñu yaakaar kon fu nu mën di ñaan ba ñëw fekk fi surtout El Hadj Mari waaye bu nu ñaanul sunu soxla nag bu ñu delloo ñu ne ñu te nag soxla nag mënuñoo am soxla bu ëpp li nu jom nar ko ubbi suba yàlla def tey muy guddi àjjuma waaye ñun bu nu ñaanee yàlla nangu wax kon si sa barke maam ci barke bés bi ci barke caamam ak kilifa yu fi yépp yàlla nañ ko yàlla mayaat ba déwén ñu tegaat fa suñuy tànk en tant que maire loolu mooy suñu yéene te incha allah yàlla dina ma ko defal mooy gërëm bu baax kilifa yi nekk ci commune Bambilor rawatina imaam yi imaam Modou Gueye jiite ko ndax imaam deccee yaram yi dafa sutante bés bi bu jotee kenn ku ci ne xadarat bi jumaa fi nga koy defee mais bi ma gëstoo maa ngi jéggalu sama sëriñ si dax nag si sëriñ Babacar si la moo jur Baba sëriñ jur muy juróom mu def barka démb le premier ci teewaayu Thierno lu lu amagul ci département de Rufisque mhm. mooy premier zawiya xeeru première zawiya bu El Hadj Sidi Ahmed loolu moo ko teg ci waaye maam kuy kilifa nag Ahmada moo teg xeer bi ak cernom amul loolu dafa am lu muy firnde rek ci tarixa bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk Sidi Ahmed jërëjëf Chérif jërëjëf Chérif Abdoul Aziz Aïdara si suñu maam Abdou moo ko tudde tudde ko boppam moo tax ñu koy dàkkantal Serigne Abdou Chérif Abdoul Aziz Aydara moom Tiwaawan la bokk ndax nag ñun amuñu lu dul seen kër maam maam ñun amuñu lu dul seen kër maam kon bu ñu dajeeg sët yi ci bés bu mel nii la jëkk def rek mooy jox leen seen wàccuwaay gërëm leen sant leen tàllal leen suñuy loxo sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu meer la nu bu nu la gisee nag war noo mën a toog ci kaw boo nu mayoon la nuy doog a toog waaye boo nu ko doxul rek du nu toog wala bi ni ñëwee ñu àgg ci suuf kon ñu gërëm ko bu baax di gërëmaat njabootu Siraj Malick bi fi ne yëpp di gërëm njabootu Baye Gueye di gërëm ñëpp di sant ñëpp rawatina nag jigéen ñi gis nga moom jigéen tijaan yi ñu mel dañuy taamu foo leen fekk di xëy mu neex loolu moom loolu moom maamoon ko am del sëñ bi alors moom suñu maamoon ko daaw leen bu baax sant leen di ñaan yàlla it képp ku fi ñëw leen yàlla la yàlla may kattan ba nga mën fee ñëw déwén mu fi waaye andi it yàlla ko yàlla faj ci barke yonente bi ci barke borom guddi jërë ngeen jëf وأول من لبى ألست بربكم هي روحي ورحمن كان مناديا وقد غاش في الأنوار حينا مصبحا وجاب بحورا عشرة متدانية كان نبيا بي وادم ما وقيل ساريا على جمع سنانا وقد قال بالانوار حينا مصبحا وجاب الروح عشره متدانيا وكان نبيا ويبصرن عنك الأكحوان المواضيع فيا لك من دور عرفت عودا سحبت بها ويل الشبيبة الضاغية وقد غاش في الأنوار حينا مسبحا وجاء بحورا حتى متداليا تصب ينتهي محمد وكان نبيا بنبوة ما وادم إلى ما يؤتي بذلك محبته يوم na ci yoon Yàlla Muhammad taxe waxuma ko Seydi Hadji Malick ko wax Seydi Hadji Malick neena ah. eh, eh, kenn du yoon Yàlla Muhammad tàngal xaar nañu benn yoon nu laxase ko sam-sam fekk ni ciy leer kaste tàbbal ci muñ tàbbal ci ndëm te naan ko wooteel ndax ñu gëm moom ma du la ñu leetar ba ñu di am ak muy jéem am day ñi dalaan daa daan bàyyi suñu cosaan di seet leneen ñuy xërëm xam yi ko njëkk gëm ci jigéen ñi tam ñaareel ba mooy Ababakar صديقنا أن يقدم بدينا خيتا الجمل فارقنا دلو بلا اسكوتي تتخبط ندلو بلا مولا كوي جاتا مكة دو تاج عمر غير لختنم عمر وصلت بايم غير متو باي بلانك نمن تتوب مري غير نمبن يتوب عمر جيل أبقى دفمي وجر نورين عثمان mu daan yaqbal alquran gaañaa ko buum ngir kañaan na yàlla sara yaxam mooy doomi baayu mu sara mu aliyu mooy doomi baayu mu sara moo ay ci noonu mu sara gisa kanaan ñoom xeetal aadee day kan kattanam moo leen ñëpp yi ñu magal yu tal muhammad. bil adli wal ihsan iyaaka nacbudu naxussuka bilcibaadati fi kulli waqtin wa awaan wa iyaaka nastaciinu cala alacdaai wannafsi walshaytaan ihdina siraata almustaqiima bilistiqaamati cala aliimaan siraata alladina ancamta calayhim من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان إلى الله نشكو ما لنا من مطالبه هو المنعم المعطي جميع الرغائب فمن شاءه يعطيه ما شاء تفضلا عليه فإن الله مولي المواهب عبيدك مولانا لدى الباب خضعا فيسر لهم ربي جميع المآرب لك الحمد يا ربي لك الحمد إنا شاكرون جميع ما علينا به أنعمت من كل جانب علينا فتب يا غافر الذنب رحمة وقابل التوب أنت من كل تائب أمتنا على حب الرسول وآله وشيخي أبي العباس مهدي المراتب أزقنا شراب الأنس واملأ قلوبنا بنورك يا رحمن واستر معائبي صلاة إله العرش مالك أمرنا دواما على الهادي وآل وصاحبي وأزكى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي أزكى صلاة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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ci jotaay bu tedd bi mu ñu mayeti Ceerno wax na ko jotaay gënu la tedd yàlla may la nga julli tàkkusaan may la nga lal sa mbalaan di wax laa ilaha illa allah ginnaaw ba nga ko ubbi fatihatul kitab teg ci astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum bokkul ak qayyum qayyum la bokkul ak azma azma kenn du ko wax azma it kenn du ko wax astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum xam nga loolu mooy lan loolu mooy yàlla lépp luy waral ëllëg ma dem ca giri ba yàlla nga ma ci musal ko ñetti yoon jàng salaat al faatihi ñetti yoon commencé sa hayda la laa ilaha illa laa ilaha illa allah laa allah ci allah allah bu la neexee laa ilaha illa allah dem bi bu la neexee allah allah ba dem tëdd sob waaye nag maqam yi bokkut fële yaa ngi ci maqam muraqaba la ilaha illa allah waaye bu ki ngay ki ngay fàkkal na ki ngay xàllal bu agsee nga ni waay yaa ngi nii moo tax allah mooy maqam mushahada allah allah fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan Alxaaji Maalik fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan xaqiran mustagiisan bi shiddati waaye lu mën a xew fa anta du man fa anta fa anta waaw Cheikh bi muy fëgg buntu yàlla bàgg ci xadara ba bi ne ko kooku komu amul mën a déedéet arbaatun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu summa li wa indi benn baaxu ci buntu yàlla amul mën a da nga naan wax Cheikh Al Hadj Malick bi dafa ni abdun abdun te nag maqaamul abdi xaj daaw ko zullun wa imtihaanun tazallal kay tujaani sa yaa zaliil sharxali malik sharxali Mouhamadul Mansour ni araka ida ma kunta taxtaaru gayrahu takun abda gayrin te boo ko defee rek fadlalaalu jadiiru nga ni ko bàyyi lu may def mu ni wa kun yaa axi wa kun yaa axi abdan wa kun yaa axi abdan li mawlaaka tastarix mi ne diini wa dunya siwaahu yëppuko garab bi ëpp doole ci jaam ci kanamu yàlla mooy mu nekkaat jaam wa innahu lamma qaama abdullahi subhaana alladi asra bi abdihi maam Maodo ni abdun zalilun faqirun xaashiun wajilun asifun yallaahu yallaahu sëriñ Babacar Si bi mu bi mu bi ci maqam boobu ñu ni kooku kumu Seydi Hadji Malick bàyyam moo ne woon yàlla ci sab jaama moom présenté wul ni man Alaaji Maalik man maa jàngal taalibe yi wala maa ijaazal diw wala maa muqaddamal diw dafa ni abdul rek ab jaam rek Sëriñ Babacar ñëw ñu ni ko ah, lu ma la kaw faaw nga présenté wu sa baay bi mu tollee fi dafa ni woon ab jaam la bu wuti boroomam ñu ni ko koo kumu sëñ Babacar mu ni haza ki ngeen di laaj Ubayduka fu sama baay nekkub jaam man Babacar matuma fa jaam haza Ubayduka xoolal Ubaydu waxula abdu de Ubaydu haza Ubayduka inda albaabi yaqra'uhu wa laysa ya'lamu illa anta man xaru haza ki taxaw ci buntu xadra yàlla yow yàlla yaay laaj laaj boo xam ne yaa gën a xam waaye bëgg rek jaam bu wàcce boppam obay du sas as as njaam su ndaw a ndaw suñuy wax Babacar Sy indal baabi mi ngi dër xam dër dër taxaw ci buntu yàlla yaqaraawu dër yaqaraawu di ko fëgg te fëgg gi du fëgg koom-koom fëgg bi aj daw góor du fëgg koŋ-koŋ xam nga lan mooy fëgg bi astaghfirullah ci buntu yàlla laa ilaha illa allah ci buntu yàlla allahuma salli ala sayidina muhammad inda albaabi yaqra'uhu sëriñ Babacar ni wala sa yaalamu kenn du mën a xam te kenn du xam man xaahu destination sëriñ Babacar si ci digganteem ak yàlla illa ant bay Abdul Aziz Dabba moom it taxaw ci buntu bi di fëgg ñu ni koo kumu mu ne ah, sama bàyyi de ab jaam la waxoon sama sëriñ ba sëriñ Babacar si nee as njaam la fu sama baay nekkee jaam man Abdou matuma fa jaam fu sëriñ Babacar nekkee as jaam man lu may doon ñu ne ko Abdou faw nga présenté wu mu ni wa ubaydu abdikum jaam ñépp boo leen boolee seen jaam wa ubaydu abdikum ataakum zairan yarju xiran ya mukrima difani moo tax ñu sant yàlla bu baax ci teraanga cër bu toll noonu wallahi yàlla may la takkusaanu ajjuma nga def sa hayla la tabaarakallahu julli timis génn ci tànt bi di waxtaane yàlla waxtaane sayyidina muhammad ku ko yàlla am nga cër yàlla yàlla nangul ñu di julli ci sayyidina muhammad yonent boobu nga xam ni lu ñu yàlla may ci ko may ba ci takkusaan gii lu ñu yàlla maye imam ci barke rasulillahi la bu ñu yàlla mayee ay sëriñ ci barke Seydina Muhammad la bu ñu yàlla mayee ndey ak baay ci barke Seydina Muhammad la ku fi ñëw ku mu ak foo mën a jugi ak loo am yàlla ngi la ko mayee bi barakati rasulillahi bu leen way bihi naala maa naala rijaalu maratiban min almalik alallaami jallat an alxasri Seydina Muhammad mbaye ngeen ni daaw góor amul benn jëmmu doomu aadama buy dugg safara benn jëmmu nit bu yàlla dugal safara amul benn jëmmu nit d'accord kon jarul leer kon d'accord leen xaj daw góor wala Cheikh Tidiane wala maam Xaaji Malick wala ma jël sama njóobeen bi monsieur le mair jëmm monsieur le maire bu taxawee nga bind Mouhamadou nga taxawal ko waxuma nga tër da koy taxawal bindal muhammadu miim gi mooy bopp doomu aadama xaa gi mooy dënd doomu aadama geneen miin gi mooy ndigg li tànk yi mooy del gi bu yàlla demee bay mbugal nit yàlla na ci yàlla musal daf koy déformé ba dootu amee melokaanu muhammad bu doo ko tabal safar seydina muhammad kenn du moom ba ci booy julli xaj daaw góor ku santaane julli waaye moom du julli waaye xoolal jëmm turu seydina muhammad ngay jullee bindal miim boo bindee miim sax ba ci tànk xam nga da ngay bind miim mu ànd ak benn tànk mm-hmm. mooy taxawaay bi xaa gi mooy xoolal xaal xab lonk ak ruko xaa gi mooy ruko bi miim gi dafa ron mooy sujjóot bi del gi mooy toggaay bi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla na yàlla wuutu fayal ñu Seydina Muhammad jàppal ma ne 15 minutes ma arrêté nuyoo bi ak ziyaara bi ma ci sama sëriñ sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz yéeneem moo doon teew fii ak yéen waaye sëriñ daara yi ñooy jàngale ni al abdu yudabbir wallahu yuqaddir wala bi gën a gaaw l'homme propose Dieu xanaa boobu moo gën a yomba ah. su ko defee yéeneem moo doon teew fii ak yéen waaye li wér mooy ci Ahmed Tidiane bu teewee Ahmed Tidiane bu teewee sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz teew ay Abdoul Aziz Gadiaga bu teewee sëñ Babacar si Abdoul Aziz teew na Ahmed mi di sëñ sëtu bu teewee sëriñ Babacar si teew na waaye Cherif Abdoul yu fi nekk bu ñu teewee sëriñ Babacar teew sunu kër maam Cheikh Al Hadji Malick kenn ku mu doon boo teewee wutu nga xadara bi loolu mooy programme mu Seydil Hadji Malick xaj daaw góor mii bu teewoon wutu na xadara bi yépp boo gisee daaw góor doo xalaat maam Moussa Allé xam nga koy xalaat sëñ Babacar si Mansour loolu mooy cëram kon képp ku doon ci yéen jàppal ni yaa fi wutu sëriñ bi waaye sëriñ baa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp nuyoom nag mooy nuyoo ay kilifaam Cheikh Al Hadj Malick Sy yàlla may ko fanu gudd ak wér waaye mooy nuyoo mooy sans fil dafa wóorul sax moo wóorul sans fil waaw bu ànd ak fil de allah nuyoo bi mooy nuyoo bu Cheikh Alxaaji Malick Sy Maodo waaye mooy nuyoo xalifa bi sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour ak njabootu maam Seydil Hadji Malick yépp waaye ak diine ji yépp nag yëgoon ni àddina ba mu daj sëriñ bi benn sëriñ moo fi am àddina wër nga ba mu daj benn nëpp sëriñ moo fi am muy Sayyiduna Muhammad moom dong la yàlla joxoñ ni wa in tutiihu hu hu sayyiduna muhammadu tehtadu di ngeen dem aljanna moom dong nga fi dégg ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu sallallahu alayhi wa sallam moo tax na fekk mooy sayyiduna muhammad sëpp nga koy doyee ndem mat na ko na la dimbali nga jubboog yàlla sëriñ bi ndem na ko sëriñ bi ndem mat na ko na la dimbali nga jubóog say waajur sëriñ bi ndem mat na ko na la dimbali nga jubóog say mbokk ab sëriñ du yàlla du yàgg ba mu nekk yàlla mbaa yëg nga ne sëriñ bi ñaari masala moo leen boole masala sharia boo gaggee demal mu gàgganti masala tariqa boo gaggee mu gàgganti yàlla na fekk mu xam ko yasxabu cheykhan arifa almasaliki yaqihi fi tariqihi almahalik sa maam haadi Touré dafa xool Cheikh Al Hadj Malick ba yàgg sa turandoo maam Hadj ni man de Seydi Al Hadj Malick yéem na ma ñu ni ko turee du la yéem ci Maodo mu ni lillahi darruka min cheikhin yadullu ala mawlaahu qawlan wa fi'lan yabna Ousmane mu teg te ni ko bàyyi El Hadj Malick kama aalimin wari'in lawlaaka ma kaana kam saalikin waasilin lawlaaka ma kaana kam abidin zaahidin lawlaaka ma لمودكم سبت كم عزت كم بشرت كم ولكم كم كم وكم ثم كم أرشدت حيرانا بذلت مالا مسريا لفقير وبذلت علما هاديا لجهول يا ابن عثمان moo tax bay Abdul Aziz Dabbax ni ko rabbayta arshadta xoolal bàyyi rabbayta yar nga képp kuy sa njaboot arshadta orienté nga ñëpp yemoo ca àllamtal wara ba ñu xam àllamta jàngal nga àllamta dimbali nga alwaraa njaboot gi yépp ba ñu xam nga dellu teg leen ci yoon woo xam ni kenn fétalu jahattahum bi siyaasati bi an tabaawuka bañ la toppee yóbbuwoo leen yóbbuwoo leen ci seen bopp da nga leen a yóbbu ci yàlla wa wasalu lil aliyi maama abdu ni seydil haaji malik mus dolli gaa ngi musal wa sawfa tashcuru bada zawqi an la nga mus ci seydil haaji malik ahla wa asfa axi min asalin wa sukar xam nga lem buñ ko booleeg sukkar dina neex mooy Seydil Hadji Malick su ko defee kon jërëjëf ilaa al arshi xayra jaza ilaa al arshi xayra jaza mawdo ma daama raal samay wat dafa guddi yàlla yàlla fay kon Thierno ñu ngi lay nuyu bu baax sëriñ baa ngi lay ziyaara bu baax di la ñaanal yàlla bu baax di la bëggee nag képp kuy njaboot mi ngi lay bëgge ndax sa taxawaay ndax sa yitte ndax sa dal ak jàppale jaamu yàlla yi loolu rek mooy programme mu Seydi Hadji yoroo lu dul sa téere bi Maodo kurus gi ak sa gopp fii nga xaroo sa jàngu bi jàngu baa ngi demoon jàngu baa ngi ñu ngi ci jàngu bi ah fii nga xaroo te Maodo ngi nii fii nga xaroo sa jàngu bi lii nga sa ba kon keneen ku fi woote ci xadara Seydi El Hadji Malick lu wute qaala allahu qaala rasulullahi da ngay soob nit ñi Seydi El Hadji Malick këram ñaari kaddu moo fa am lii la yàlla bëgg lii la rasulullahi bëgg jàppewu ni kenn tali ànd ngir yàlla xormaalante ngir yàlla doo dégg ci kër Seydi El Hadji Malick moom ñu ne diw sama taalibe la ku koy woote nag sañ nga ko bu la neexee fa nga ko teg yaa ko xam waaye dama ne Seydi El Hadji Malick këram ak njabootam kenn amul droit diw sama taalibe nawlonte rek dex saw Cheikh El ma dafa ni man de yàlla dimbali na man Maodo ba awma taali bi ñu ne ko ansi ah, ñu la wër nag mu ne laaj leen ku ma tuddal sama nawle rek fexe naa ba lu ma bëgg ci lu baax bëgg nga ko lu ma xam-xam nga ko lu ma bañ bañ nga ko loolu mooy nawle xam nga xaj daaw góor Cheikh El Hadj Malick li ñuy bañ li ñuy bañ ëllëg daa gis sëriñ ci kanamu yàlla waaye kooku du sëriñ këriñ la maam sëriñ Touba neen booy ànd sëriñ àndal ak ku lay wan yàlla te nëbbu la boppam ñu ne bindal mu ni man la yazaalu abida li rabbihi ila hudahu qaida nee na booy ànd ak sëriñ àndal wan yàlla te nëbbu la boppam loolu mooy fula gis nga daaw góor sëb sëriñ bu ko bàyyee ñaar du tee nekk taalibe sëb sëriñ boo xamee na nga xam bu amee na am du tee nekk taalibe Zimalik loo wax dëgg la dof ba xam naa am njaayeen la wala dégg wala am njóobeen wala muy am ndaw kundaa dafa jékki-jékki ba yàgg mu ni xam naa ci lenn ñu ni ko yow dof dong nga xamoo dara mu ni moo ni xam naa de ñu ni ko loo xam mu ni li ma xam mooy wax ju baree bari lépp di dëgg alquran la te yàlla ko wax danaa bii dof wax lépp di dëgg alquran la te yàlla ko wax su ko defee kon nañu ànd ak sunu sëriñ si mais ci kaw li yàlla bëgg nii Cerno def ak yéen tabaarakallahu yàlla yàlla barkeel di nuyu imaam yi fi nekk yëpp bay Abdul Aziz maa ngi ziyaara imaam imam Sharif Abdul Aziz maa ngi ziyaara bu baax di nuyu monsieur le ministre bu baax moom ko ñaanal yàlla ni ko ni ko waxee ci daara ji yàlla yàlla taxawu la ba ci président tabaarakallahu ak mbooleem ñi nga fi wutu xaj nga jóg ñaanal yàlla moom it na nga yàgg a di nuyu préfet sous-préfet ak mboolem kilifa yi fi nekk bàyyiwuñu kenn di nuyu gouverneur mbokk yi maa ngi ziara ñëpp di nuyu Cheikh Tidiane moom daf ma bàyyi ah. gay di ko ziara bu baax a baax a baax ah. ak seen mag yi tabaaraka ah. dafa ci taxaw rek kilifa yi fi toog maa ngi ziara ñëpp di nuyu jigéen ñi di leen ñaanal yàlla bu baax yàlla léegi sama xarit foofu nag sama waay la wax waxul waaw fi doom yi tëll kenn la bëgg muy Seydil Hadji Malick lu tax ci Maodo nag Cheikh bëgg yal na yàlla sàmmal la boppam Al Hadji Malick yal na yàlla taxawal bàyyi ngay nag juumut ki nam tudd ki nam tudd Ahmadou Ahmadou mooy Seydina Mouhamed Cheikh mooy Cheikh Tidiane waaye borom daara ji mooy Seydil Hadji daara ji Cheikh na fee toog am de bu amoon ndigalu baayam toog fi su Amadou amoon ndigal toog fi ay rakkam ku ci am ndigal toog fi waaye mu ni comme que Maodo mooy sëriñ daara bi na fi Maodo toog mag ñi kenn xamul li ñuy def la yal na yàlla jàppale la yal na yàlla taxaw la daara nag xaj mhm. la daara deel <laughs> alif ra deel ñaata la ca Tivaouane moom ñeent la xaw ma nag fii fii ñeent la alif ngay benn alif benn la raa ca Tivaouane deux cent la fii deux cent fii tamit deux kat ak alif ak deux cent ñeent ak benn ak raa di deux cent teggil zéro yi ci deux cent bi cinq ak deux sept sept tango Seydina Muhammad ku doy waar la dafa ni boo amee doom rabbihi sab'an ñu ni sa doom bu amee juróom-ñaari at na nga ko yóbbu taa rabbihi sab'an wa addibhu sab'an muy daara wa saaxibhu sab'an muy kalimatu alquran xam nga daara sett la lan la fay jàngi alquran alif laam qaaf tikkant raa alif nuun sett la kalimatu alquran sett la alif bu njëkk bi yaa ngi jàngal xale bi alwahdaniyatu lillah xoolal ni alif bi jube allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum temps bi du ko may laab bi mooy laqad jaakum xoolal yàlla ni ni ko sayidna muhammad dara xoolal allahu muhammad yëgoo ne xaj daaw góor booy ñëw booy jóge Tiwaawan di ñëw jëm ci tànt bi di dugg ci sa oto nga wàcce oto bi ñëw ci tànt bi sa tànku ndeyjoor bi buy dox mi ngi wax laa ilaha illa allah bu càmman di répondre muhammadu rasulullah moo tax yàlla ñëpp a koy jaam dafa am ñu koy jaamu tawan am ñu koy jaamu kër han boo ko jaamoo tawan mu fay la boo lànkee mu dumal alif bi mooy allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum seen maam seen baay abdul aziz dabba daan na wax ne su ngeen di jàngati ayatul kursi na ngeen ko jàng ba ci lan fisaama laha wallahu samiun alim hunaka asma boo ko mbiru ceerno la am na ci biir ñeenti tur yoo xam ne bu àggul foofa du mat oto ñetti penu wóorut day am ñeenti ruu dañ fi sàmmalehaa nag fa la ñeenteelu ponu ba ne noonu laa ko déggee nag ok noonu laa ko nettalee it nag lam bi mooy laqad jaakum muy allahu muhammad di nga jàng ci biir téere bi ngeen do jàng di nga jàng ci biir téere bi maam Maodo inna allaha la raufur rahim la ku baax laa bay daw bo xool inna inna inna allaha ba noppi waxaat la la raufur rahim muy yàlla waaye di nga jàngit laqad jaakum laqad bokk la laqad kenn du wax laqad laqad fa am lu ñuy jàngale ñoom xaaji malik lu ñuy tuddee xuruufu xalxala muy xutu bu jadin comme ni ngay waxee subhaana au lieu nga wax subhaana kenn du ko wax subhaana laqad kenn du wax laqad loolu beneen dima tawakkal la maa ngi dem laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufun rahim kon nga dégg ci ni ida kaana allahu ida kaana allahu raufan wa rahiman binnaasi fa inna sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallama raufan wa rahiman bilmuminina sallallahu alayhi wa sallam kon alif baa ngoog allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum ci kalimatu alquran laam bi mooy laqad jaakum qaaf bi mooy qul illahuma malika almulki raa gi mooy arrahmanu allama alqur'ana dikkante gi mooy amana rasulu alif bi mooy inna allaha astafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin nuun bi ci mujj te moom la ci yàlla soxla moo di nuun wal qalami wa ma yasturuun ma anta bi nicmati rabbika bi majnuun wa inna laka la ajran gayra mamnuun wa innaka la ala xuluqin azim alquran ku koy jàng da nga war a baax di nga dégg ci biir arrahmaanu xaj daaw góor allama alqurana yàlla nee na bàyyil ma xel alaaji Malick Gueye nga ñu ko lu tax mu ni fa mu toog man yàlla maa ko fa teg arrahmaanu ñu ne ah mu ni allama alquran képp kuy sëriñ daara yàlla nee na may sa sëriñ ku la attaqué man la attaqué yéen ñépp jàng ngeen man aadali waliyan faqad aadantuhu bil harb am de Seydi El Hadj Malick nii walan yamuuta man yuhibbu shaykhana illa ida saara waliyan biatina am déet am haaj ni te sax nga xam ngeen fa shukran li mawlaaya moo leen niam yanan yàlla fayal nag kon daara ji daara yàlla la jàngalekat bi moo di sayyiduna Muhammad yonent bi moo ni woon Mam Maodo mm. moo ni woon innama bu'istu mu'alliman beneen bi seen xel tamit ñëw na waaye bii it ñëw na innama bu'istu mualliman yàlla ma yónni ma nekk jàngalekat boobu moo jiitu innama bu'istu li utammima makarim al axlaaqi parce que boo jàngul sa jikko du baax innama bu'istu mualliman kon képp kuy jàngale jotaayu Seydina Muhammad yonent bi moo lay superviser yonent bi moo lay ñaanal yonent bi moo lay aar laa taxzan inna allaha maana alxaaj Malick laa taxzan xayrukum man taallama alqurana wa allama laa taxzan inna allaha maana kan nga ko waxoon sidna Aboubacar laa taxzan sidna Mouhamed laa taxzan ni Aboubacar laa taxzan boobu nag bokkul ak inna maay rabbi xam nga ustaz inna allaha maana bokkul ak inna maay rabbi waaye bu ci nekk tabaarakallahu niveau la ñu ngi ñaan waa Bambilor ak waa dëkk bi yépp daara ji bu ko kenn bàyyee Xaaji Maalik moom moo nekk ci bopp bi yéen la wuutu waaye yéen ñëpp ngeen jàpp jàngal yàlla na xam da doon samam Seydil Xaaji Maalik xaj daa góor xam na mag ñëpp xam nañu te góor ga faal di jóge woon gañ joxoon maam Cheikhul Khadim mu jox ko maam Seydil Hadji Malick ndax ay bëtam yu muuru maam Serigne Touba ni kii yóbbul leen ma ko joxal leen ma ko sama mbokk ma Alaaji Malick yàlla may na ko bu ko jàngalee mu xam maam Maodo jàngal ay njabootam ñi xam ngi ci dëkk bi tabarak maam Maodo jàngal ba alxuraan ji mokk waaye Maodo teewul dafa ne delloowaat leen ko Serigne Touba moom ma ko joxoon xoolal boobu maandu te mu ni Maodo mu ah, dañ ma jàngalee la woon rek jàngale naa ba pare delloo leen bu ma àggee maam Serigne ki la jàngal alxuraan ji ba nga mokkal na dellu mu jàngal ko xam-xam Maodo ku mu jàngal mu xam maam Maodo jàngal xam-xam ba xam-xam ba mbokk mu ni delloo waat del Serigne Touba maam Serigne Touba ki def ci alxuraan def ci xam-xam bu rëy bii na la jox tarixa bi mooy sa wasi di mooy mbaax mbokk yi dabal teraanga di ko buuxante ba mu xam moo gën di ko xëccoo ba mu xat ñu ngi ñaanal monsieur le maire yal na ko yàlla defal ndam yal yàlla jàppaleel yal yàlla sàmm la yàlla aar la ak mboolem ñi yóotu ku ci nekk la nga yóotu yàlla ci yow waaye lu mën a xew ki fi toog ak ki bëgg a ñëw séq leen jàpp politique ñaawul ñun ñoo koy ñaawal waaye ngañ job laa faral farum ak daaw warul tax nga saaga kaw mhm. warul tax nga xas kat mhm. waaye bu kenn xas mhm. bu kenn saaga kat bu kenn lakk kër jàmbur bu kenn oto jàmbur bu kenn sànni xeer rafetul dëkk bi ngañ moomu ko ministre moomu dëkk bi dëkk bi Thierno moomu ko dëkk bi Baye moomu ko dëkk bi yéen ko moom bu ngeen defaree seen bopp ngeen defaral mhm. su ngeen yàqee seen bopp ngeen yàqal mhm. in ahsantumu ahsantum li anfusikum mhm. wa in asatum ay camp ñu marqué woon tey waa léegi boo ko taaga boo légee mu nekk maire nga dem bureau noo koy xoole kii ngay buux naan na fi jóge di ko ci muy daal nga di ko xas bu yàlla nee du dem boo léegi boo demee bureau noo koy xoolee kon na rafet ku leen neex waaye na rafet bokk na rafet ba ci seen tariqa kër Seydil Hadj di way sama sëriñ ci kër gi ku ne sañ nga ko waaye xormaa la waaye diw laa bëgg xas ka ca des diw laa saaga ka ca des bu koo kenn Seydil Hadj Malick moo waxoon ni Maodo jurul lu Mm-hmm. bu la neexee nga ne njabootu Serigne Babacar ñooy sama Serigne mm-hmm. ku ne sañ na ko njabootu Alaaji Mansour ñooy sama Serigne ku ne mm-hmm. sañ na ko njabootu Baye Abdoul Aziz Dabakh njabootu Baye Habib waaye ku mu doon ci ñoom nga jàpp-jàppal ni si Seydil Hadji Malick la jàpp koo ci wàcce Maodo ngay jéem a wàcce te Maodo nag ku ko wàcce di nga wàcce la <coughs> ko wax de <coughs> almidfaul kabir yadfaw an bu'din te gars yi faw ñu gëm ñu lu mën a xew laqad rufiat rayatu uslubi cheikhina fa man shaa falyumin wa man shaa ankara ñu ni ko maam Maodo foo ko teg mu ne damaanu nabiyillahi na fi inqitaa'ihi ila axiri dunya an ash-shayqi qurira sëriñ Babacar ni ko bàyyi ma feelu la lahu damaanun min al-muxtaari mustamilan bi shii'atin haadaha yardaa bi mas'aahu kon kenn ku nekk àndal ak kala neex waaye xormaal la al asmaa yi foofu laay jeexale xaj daw góor xaatimul asmaa yi dafa gis benn waay muy zikkar ci kaw jaww ji di wax allah comme li ngeen jógee léegi moo tax asul jumaa ci beneen affaire allah allah ci kaw jaww ji to toogul ci garab toogul ci suuf mu ngi ci kaw jaww di zikkar di wax allah allah asma'i ni ko man anta ça va yaay kan xam naa moom it jàmbaar la ndax ku mën a àgg am na mhm. waaye déglu li waaj ji wax ci laa commencé woon man anta bu doon man ma yi man damay yow fajar man duma nelaw guddi ah damay werd ku la li werd yàlla nangu na defal rek te yàlla sa bopp xanaa werd dafa tax nga gën nit ñi defal te nga bàyyi sa bopp mu ni ko man anta diglu li ko wàaji wax ki àgg ci xadara ba di zikkar ci kaw jaww ji ñu ni ko yaay kan mu ni man ñu ni ko waaw mu ni ana abdun min ibadi jaam dong laa ci jaam yàlla yi bari ñu mel ni man xoolal wax ji ana abdun min ibadillah ku ndaw a laa ci biir jaamu yàlla yi waa ji ne ko léegi d'accord naa waaye beneen question mooy bi ma wajadta hadihi alkarama garaat bu rëy bii ba am doole taxaw ci kaw jaww ji di zikkar di wax allah foo ko jëlee mu yàlla ma ko may mu ne ko waaye am na loo def yàlla moom du fekk ku toog jéemul mu di la may faw nga jéem mu jàllale la mu ne ko leen daal xam naa ko taraktu hawaaya li hawaahu fa ajlasani allahu ala alhawaa'i hajartu alxalqa turran fi hawaaka wa aytartu alciyaala likay araaka taraktu hawaaya lépp luy bànneexu àddina di bànneexu sama bakkan bàyyi naa ko li hawaahu ngir dabu bànneexu yàlla fa fa bi sababi dalika ajlasani allahu ci la ma yàlla mën a mayee ma toog di zikkar alal hawaayi ci kaw jaww ji taraktu hawaaya li hawaahu fa ajlasani allahu alal hawaayi kon boo bàyyee lépp mam Cheikh Alhaji Malick jàpp ci daara yàlla ji ci daara yi Seydina Mouhamed fi sa baay loo soxla incha allahu fi la lay fekk taraktu hawaaya li hawaahu ñi la ciy taxaw di la jàppale ci yàlla yàlla fay mm. mbokk yi foofu laa yemale tàgg Cheikh Tidiane yi Thierno ñaan na ci ndigalu Maam Xaaji Maalik ak Cheikh Tidiane mm. bu ñu gàmmootu xam ne la mm-hmm. waxtaan ak kilifa yi loolu moom mbiru Cheikh la mm-hmm. buñ ko validé rek tabarakallah Cheikh Tidiane Thierno ñu ngi leen ziara lycée Penda Mbengue sama xarit yi ma suur su duggee ma sëmbuutu ñun ñëpp ko def sag bi sunu sag la ñun ñëpp kon farata la ñun ñëpp ko yàlla mu àggalee sumb bii mu sumb yàlla ko yàlla defal ndam ñaanal Serigne Mountakha ak mboolem sunu kilifa yi diine yi waaye bala may jox monsieur le maire xëy na monsieur le ministre dañuy teg première paire xeer wa kenn du fa jànge ay bâtiment la ñuy jànge te xeer bi rek taxul ñu ñëw fii dañu bëgg a liggéey dañu bëgg a liggéey li ñuy liggéey yàlla lañ ciy wutu bala ministre di jël maa ngi tàll ñëpp loxo bu ma kenn joxe woon naa ku ku doy loo joxe bi nga joxe rek comme que yóbee ni añ nañ bu guddee bu kenn reer bu subaa tam bu leen liggéey li ngeen joxe loolu seen digganteeg maam Xaaji Malick la man nag sama sëriñ moo ma yónni tàllal loxo ñëpp ci jumaa ci ci daara ngëj ñu booy maa ngi tàllal loxo ñepp oustaz ak sëñ jaara imaam ak waaw ñëpp rek ñëpp waaw mam Malick Aji Malick jërëjëf kay wax kon doo ko xoolee gis bàyyi kay xam nga ci loolu xam nga ci loolu xam nga ci loolu